mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci RTS télévision nationale ñu ngi ñëw nag indi beneen numéro boo xam ne dañ ko jagleel wàllug euh, gàmmu gi rawatina it li nga xam ne moom la ñu woowee yoonu gàmmu gi gàmmu gi nag suñ ko waxee xel dem ci Tiwaawan bi yoon ñu ngi ubbee waxtaan wi ak zawiye ba ca Tiwaawan zawiye bu Tiwaawan nag foofu la ñu yebaloon suñu naataango yi ñu dem xool yi cosaanu zawiye bi solo zawiye bi ak nit ñi boobu ak léegi naka la ñuy toppee zawiye bi nekk foofu ca Tiwaawan histoire Zawiya ak histoire Seydi haj malik si benn la fii ci Tivaouane Zawiya nag ab complexe bu ëmb banxaas yu bëri wuute nag ak jàkk wala juma. mais Zawiya nag buñ ko waxee sufi la al mutasawifuun mooy ñi nga xamante ni dañuy def tariixa mi ngi commencé Afrique du Nord moo xam Tunisie la moo xam Maroc la moo xam Égypte la di wàcc xam ñun l'islam Maroc la jógee di wàcc. ñoom nag mutasawifuun nag wala sufi yi dañuy am complexe la boo ne boo nee boo nee euh, zawiya complexe la parce que zawiya mën nga jël zawiya bi Cheikhul Hadj Malick Sy zawiya day am forcément daara parce que euh, euh, sufiya ki bi cheikh bi dafa am ay taalibe da leen war a jàngal day am daara zawiya tamit day am mausolée foo demee ci zawiya Cheikh Alhaji si am na xabru Cheikh Alhaji Malick nit ñi ñëw mu nekk lieu de recueillement di nga gis Dakar ku yoo xamante ni week-end bi mu ñëw spécialement pour ziyaare delluwaat parce que day am nekk mausolée mais en même temps tamit day nekk euh, lieu boo xam day am lieu de retraite parfois booy def i'tikaaf wala yëpp di nga ko fa mën a defee mais en même temps day nekk euh, boo xool euh, lieu de rassemblement. fii nag ci Tivaouane zawiya yi bari nañu fii waaye tamit nemmeeku nañ ko ci biir réew mi. ñom nak lepp lu soxal talibé cheikh ci walu formation ak jang diné ni ko Maodo jangalé mo fi nek El Hadj Malick nag Zawiye commencé wul Tivaouane commencé won na Xavier. Saint-Louis mu nekkoon 1903 mu def Tivaouane Xavier. mu nek 1904. mu commencé Zawiya euh, Dakar mi ngi ko commencé 1905 mi ngi tàmma mi ngi yegg nak 1909 c'est pour vous dire que euh, jàkka wala Zawiya point essentiel la ci euh, wasaarab l'islam bi nga xamni mom la El Hadji Malick amee. zawiya yi nag ñooy wéyal li nga xamanteni ni civilisation tidiania ni ñu ko gisoon ci seyd Hadj malik si ci bopam ñom nak am nañu bërëb jullikaay bërëb ziyara ak bërëb jàngalekaay mu don nak complexe bu ñëpp naw. mi ngoog waxtaan la bu Youssou Kaba jëri woon foofu ca tiawan doon dellu si ci zawiya bi nga xam ne moo nekk Tivaouane bi yoon dañuy waxtaan ci zawiye bi nga xam ni moo nekk fii ci dakaar xam ngeen su ngeen duggee ci quartier bii di Plateau am na zawiye bu mag boo xam ni Seydi di élage Malick moo ko fa soos booboog léegi ay at a ngi nii reportage la bu Aïssatou François Seck bërëbu jàmmu yàlla la bu fekkee taarix yoonu tijaan fii ci Sénégal nekk fii ci avenue Lamine Gueye zawiya El Hadj Malick Sy nit ku sell ka ca Tiwaawan moo ko samp ca vingtième siècle zawiya bi nag sunu Mam Cheikh Al Hadj Malick moko moo fi samp en 1904 ni ne 1905 te wax nañ ni dafa ñëkke ci euh sunu mbokku lebu yi ci penc bi ñuy wax penc yàq jëf né dafa bëggoon ñu jox ko penc bi mu def ko zawiya magu lebu yi ne ko kon suñu la ko joxee duñu du am place bu ñuy defee suñu ay ay activité ci ginnaw ba nak nag euh, sunu maam euh, Mbay Guèye waaye it ak maam alxaaji Thierno Saïdou Nourou Tall ñoom ñoo ko toppatool bërëb bi mu ut ko en 1904 ñu tàmbali fi di fi julli en 1905. muy bërëb boo xam ne ne ràññee nañ ko ci doxinu yoonu sufiyanke maakaan ngir tàggat ci ngëm ak pas-pas. bërëb la boo xamante ni dañ ko tabax ngir di fa jaamoo yàlla muy benn beneen bi di fa jàngale muy ñaar.

ñuy naxanteeg ñoom ci a abajada ci abajada ci abajada ba tey ji ku nekk daa téye sa kaamil jàng surtout yaasin ba mu jeex am na ñu daan ñëw di di jël di werd rek di wasifa noonu rek ci ab de façon aveugle ñu jël moom tamit formation spécial jàngal leen lan mooy tariqa charte yi ba tey jii ku ñëw di xadara juma daa xam loolu mën di xadara juma loolu la indi ci xadara juma. bare bii de maa ngi fi ñëw 1966 66 laa fi ñëw. njeexit gi ma am ci man day mooy sant yàlla rek fu ma toll sant yàlla ak maam si rajo Malick yal na ko yàlla fayal si. ca atum ba atum 1975 bërëb bi yeesal nañu ko ay yooni yoon tey nag jullit yi ak taalibe tijaan yi dañuy bàyyeekoo fu ne ngir ñëw jàmm fi yàlla. dégg naa ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yàlla yokk leeram mu wax mu ne. Euh, Chérif Tayib mu wax ne leen zawiya bi càllalam mu ngi bàyyeekoo ci maanaam umu zawaya bi nekk Fès mooy fii ñu denc Cheikh Seydi Ahmed Tijani mu ne fii lu fi waay ñaan yàlla mu nangu. ñaari soroorom ak noddu yi fiy jibee tax na ba zawiya El Hadj Malick Sy beru ca melukaanam fi ci Sandaga di bërëbu koom. Tivaouane la ñuy dellu ca quartier Tivaouane murit xam ngeen Tivaouane bari na lool ay quartier waaye quartier bii di Tivaouane Mouride benn la ci quartier yoo xamee ni mën nañ jàpp ne suñu mbokki talibé murit yi ñoo fa ëpp foofu am na ci sax ab euh, kër koo xam ni dañoo dem defi foofu reportage waxtaan ak borom kër ga muy soxna si muy góor gi nga xam ni it moo kër ga kenn ka di Tijaan kenn ka di murit teewul nag kër ga neex na lool xumb na loolu ma bay leen rek ngeen top reportage biñ ñu leen indil ci loolu. Aminata Soxna murid la borom kërëm nekk tijaan sen and ëpp na at lolu benn misal la ci diggante bu rafet bu mourid di ak tijaan yi fi ci quartier Tivaouane mourid ci dekkou Seydi El malik si ci sama borom kër la. mu mourid murid waye tay ma ngi ci tijaan di ñaan yàlla dee ci seen bët soobee ci kàttanu yàlla bu baax yàlla yàlla dafa jàmm ci quartier kër Cheikh Awa Balla la ñu nekk man nag Touba laa juddoo fa laa yaroo fa laa màgge koñ bi ma dëkk ñu ngi ci jàmm jàmm jàmm rek duñ seex ak ñoom amuñu ñoom kenn xaar ma yàlla ñu ngi ci jàmm ak salaam. bokkuñu te waaye ñii dañoo ñenn ñoom dina wasifa ñoom duñu wasifa waaye lépp ñoom benn lañu la benn benn amuñu benn problème ñoom foo di ree juboo fu ñu ànd xaw ma ñoom ñu ànd ca dem ku wàññi ku ñu dem yóbbu ko dellu si ñaanal ko. quartier bii nu mu tëddee mooy murid yi ñoo fa ëpp. quartier bi murid mhm. yi dañ fee ëpp boo tax ni ko Tivaouane murid maam Balla Diop. baay baay xaali Diop moom moo fi jiitu ci ab taalibi fan la jógee kokki kokki gële ca eh, foofu. Mhm. foofu mooy seen cosaan foofu lañ jógee ñëw fii. sëñ Moussa Bassirou di magu sëñ Mountakha moo jënd quartier moo jënd koñ bii dagg ci bari. ma jox ko ay taalibeem sedd leen ko ñëw nag dëkk fi bokk nañoo ak tijaan yi benn dëkk mu diggante murit ak tijaan ñu nekkandoo nekkandoo bu rafet sëñ bi wax ni jàkka ji ñu taxaw doon nañ ko def jumaa moom lañ bëggoon sëñ bi xamal leen du nekk juma nañ dem ba ci juma alaaji du fa dafa jullee ji. fii murit yi ak tijaan yi ñoo bokk def lépp. suñ kër yi nga xëy fii nga xëy mooy teewul murit bu gamu gi ñëwé ñu ñëpp dañu gën suñu kër joxe ko man sama kër ngi ni ñetti daal dina fi nek ñi nga xayna ay karatien lañu ñi ni ay layen ñëpp kën koy ngay sa kër joxé ko jël sa sa alal ak so doole def ci ba kër gamu gi jeex. Ah, fi ci tiyawon mourid ak Tidiane yag nañu seq jam ak salam lolu la aduna bi yépp ragné Sénégal. daayira Moustarchidine wal Moustarchidati xam ngeen at mu jot ñoom ñu ngi ci fi nga xam ne moom moo di champ de course champ de course nag foofu ca biir Tivaouane la ñuy amalee saa su nekk seen euh, gàmmu histoire daayira bi ci biñ ko sosee ak léegi fan la ci taalibe yi toll ci li nga xamee ni moom leen leen bàyyi comme héritage loolee lépp waxtaan la woo xam ne yónni nañu suñu ay reporter Mamadou sakine ak Oumar Bokoum ak Anna Seck ñu dem seeti waa daayira bi exposition bi dañ ko jagleel ak eh, kii di Serigne Babacar Sy di premier xalif général bu tijaan yi waa daayira Moustarchidine wal Moustarchidaat yi ñoo ko taxawal. thème central bu checkpoint ren bi ñu ngi ko delloo Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo tax ci exposition bi da ngeen di gis ne ñu ngi wane les différentes facettes de sa vie maanaam li nga xamante ni def na ko ni mu fonkee woon liggéey ni mu fonkee woon mbokk ni mu fonkee woon diine ni mu fonkee woon tarixa

mëna jariñ bopam mëna jariñ mbokam mëna jariñ réew bi nga xamanteni ni fa la nek moom motax daayira bi di intervenir dans tous les domaines de la vie politiquement da ngay gis ne dañuy engagé wu socialement da ngay gis dañuy engagé wu rawatina intellectuellement moralement daayira bi ñu ngi koy samp ci atum 1978 ak ñaari section derclé ak bop afi ci dakaru kiko taxawal di Serigne mustapha si liggéey na liggéey bu mucc ayib ci daayira bi bu ñu sikkandikoo euh, ci Ablaye Ndione. place Serigne Moustapha ci mouvement bi Serigne Moustapha mooy mouvement bi mooy lépp mouvement bi mouvement bi bu dul Serigne Moustapha du mouvement parce que recommandation la boo xamante ni Serigne Babacar si moom moo ko ko sasoon yen ko ko ba muy nekk lu ndaw mu ne ko xasiir kañ nga may demal tool loolu la juddu moom Seydou Malaay Mouhamadul Moustapha Sy yàlla na ko yàlla sàmm aar ko loolu la juddu di bay waaram ci toolu maamam Serigne Babacar Sy moom bi. Serigne Moustapha la kenn xamewu ko feneen. ci guddi mawlud bi taalibe yu bari dinañ nekk ak moom fële ci champ de course comme ni ñu ko daan defee at bu ne. Seydi El Hadj Malick Sy xam ngeen bari na ci li nga xamee ne ci ay daara bàyyi na ko fi nga xam ni moom moo di ndar bari na ay daara yoo xam ni bàyyi na ko fu mel ni Paal rawatina it fi nga xam ni moom moo di uh, Tiwaawan ba léegi nag. daanaka jàpp nañu sax ne daara yi dafa gën a yokk foofu nga xam ne moom moo di euh, Tiwaawan bëri na ay xale yoo xam ne foofu la ñuy jàngee alxuraan waaye booy xool it foofu ca Tiwaawan bëri na ay nit ñoo xam ne dañuy jógee sax ba bitim réew ñëw di jàng si foofu alxuraan daara yi nga xam ne nag Seydi El Hadji Malick Sy bàyyi na ko fi moom lañ demoon seeti fan la ñu toll tey jii si héritage boobule reportage la bu Youssou Kaba. daara Seydi Hadji Malick Sy wala école bu mag bi ci yoonu Tidiane ya fii ci Tiwaawan biñ fi yegg si ndongo yi nekkuñu woon fii daara bi ñu ngi koy sànc ci atum 1900 loolu nag li ko tax a nekk mooy wéyal yoonu Maodo di jàngale ak di tabax doomu aadama ci siraatal mustaxima daara ji mën naa la wax ne euh, yoonu Cheikh xaaju Hadj bu fekkee am na benn solo daara ji mooy fondement bi li tax ma ne la fondement wu Cheikh Al Hadj Malick ak soloy daara ji ci mission wu Maodo ñen fuk ñaar fukki at ak ben yoy mu am ba kérok muy génn aduna ñetti fan rek la ci jàngale wul ben bis bi moy kérok bi ko gouverneur général wolo ci ndar mu dem sen conversation yag bobu ma nga joggé njaar ne bala muy wacc kel bay jël fas wi di war ak talata bi mu génn aduna ñu di denc ci dara seyd Haj Malik xayma nañu lu tollu juróomi ñetti téméri ndongo fi nak ku fi génn xam-xam ak yar ngay yóbbaale. doomam ju ñuy wax Cheikh Alhaaji Mouhamadul Mansour way juru xalifa bi moo wax ne sama baay Cheikh Alhaaji Malick dafa xaaj dundam ñetti xaaj benn xaaj bi jàngale la benn xaaj bi defar nit ñi la beneen xaaj bi mooy di dimbale nit ñi ci seen wàllu àdduna ak seen wàllu xalaas. daara bu mag bii nag musul bàyyi yoonam lépp li nga xamante ni Maodo moom la santaane loolu moo fi wéy ba tey. dara soppeekul kenn du fayeeku kenn du la laaj ñaari dërëm kenn du la ne indil fenn fu sa doom duñu la laaj lu ñuy jëndee ndox duñ la laaj lu ñuy fayee courant duñu la laaj lu ñu jëndee mburu te taalibe yi bu ñu xëyee bu fekkee am na daal lu ci soppeeku ci jamonoy Maodo xale bu xëy dinañ la jox genn wàllu miisu mburu te loolu amuloon ci jamono Maodo duus yaa ngi fi lépp ñuy sang am na hôpital bu fi nekk xale bu siburu fi lañ lay faje ku feebar garab yi marabu moo koy jënd moom huwa bi nafsihi te dara soppi bu dee am na lu ci soppeeku daal mooy modernisme modernise ko buñ ko xaw a moderniser. ci daara bu mag bi ay génération yu bëri jaar nañ fii waaye ba tey digle bi euh, benn la loolu nag euh, mooy euh, sàmm lépp li nga xamante ni ay valeur la bu Maodo saxal fii ci Tivaouane. dañuy indi rek léegi nataaluk Baye Mbaye Baye Mbaye benn xale la boo xam ne moom it dañ ko ràññee bokk ci. njabootuk euh, Dudu Kenn Mbay njabootuk euh, Mbay Donde Mbay moom nag euh, Baye Mbay nekk boo xam ne xale boo xam ne nag du mag loolu waaye nag jàpp nañu ne xàll na yoonam ci biir li nga xam ni moom moo di diine gi rawatina it tarixa tijaaniya ndax léeg-léeg mu yëkkati ci ay mbir yu am solo lool ba nit ñi sax daal di koy sop loolu foofu nga xam ne moo di Tiwaawan ak li ko wër moo tax dañu dem seeti bay Mbay waxtaan ak moom ay waaye njabootam pour xam kan mooy Baye Mbaye ak lan mooy jaar-jaaram donte ni gone la goo xam ni daanaka amul sax ñaar fukki at reportage la bu Mamadou du fala budda bi moo fësal kii di Baye Mbaye ci bile woy day tàgg suñu boroom xale bi mu ngi am fukki at ak juróom benn juddoo Tiwaawoon màggee fa diggante quartier Zamzam ak jàppo Baye Mbaye mi surtout El Hadj Baye Ndonde Mbaye la daa teel a topp yoonu maamam li muy def nii de daanaka bi mu koy bi mu koy commencé sax xanaa dafay jàng wax rek mais papaam génn benn benn cassette cassette bi bi mu ko génnee nag booba moom tax am daanaka amagul deux ans mais suñu tegee papaam moom day toppaat ci papaam di woy non man dama leen daan déglu noonu rek di woy ci laa daan jàngale ci daare jeeg école bi mooy lool ci la waaye daal xaw ma nu mu ñëwee dafa jékki-jékki rek ñëw mu ngi doon daal. atam ah, néew lool waaye daa teel a wane boppam ah, kii di nijaayam di àndandoom moo ko ci jàppale. Baye Mbaye doon daf daan wax ni ba ci ñun kenn ñemewu cee dem ci tànt te taqoo ak njàpp ndax njàpp mooy sécurité waykat moom nag yàlla dafa def dafa koy daaneel mu may daaneel. ndax léeg-léeg ma ba ci yàgg dégg ko rek ma lu de ma ne waaye déggal baay waay moom àddina bi yëpp xam ne ni man maay wuy juram ndax dafa judd rek taqam moom mi mu ngi fàttaliku bu baax prestation bu njëkk ci kanamu mbooloo boobu kii la woon sargal al amin ñu koy def lendemain korité fii ci stade Tivaouane non tiit non non moom wax dëgg yàlla tiitu moom bay mbay eh, xale bu am bayre la macha allah waaye dafa wàcce boppam. du changé loolu ci sunu deret la ne amul kenn ko ci am benn succès ba yëg ko au contraire booy boo amee succès sax da ngay gën a wàcc sa bopp. muy jàmbaar wax dëgg yàlla mën a way loolu nag léeg dañuy dem ci programme man dama naan xale capacité bu ñu bu ñu am di mokkal ñu amuñu ko doo koy way ba mu jëx tàkk du ko xool. dem ba fu sori ci way mooy mbébétu eh, kii di Baye Mbaye maanaam mel ni maamam Baye Ndonde Mbaye rabbi ñun ñi nañu ñaanal Serigne Abdou Aziz sang ba tàllal leen loxo yi ñu ñaanal borom Tiwaawan mi ngoog fii la ñuy yam ak yéen euh, tey dañ leen di jox rendez-vous incha allah ci Tiwaawan ndax xam ngeen diggante ajuma jàpp jëm samedi dimanche RTS télévision nationale mi ngi foofu ci Tiwaawan di ànd ak yéen ci programme yi nga xam ne comité d'organisation bi indi na ko waaye it fii ci programme RTS 1 incha allahu daañ leen indil li nga xam ne moo di barkeelu ci kaddu ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi loolu yëpp si biir programme yi lay doon waaye it ak journal télévisé du ngeen euh, raté benn édition ci wolof ak ci français bu ko defee lépp luy xibaar foofu ca Tivaouane daañ leen ko mën a indil ci ëttu journal télévisé yi lay doon dellu rek mbokk yi di leen ñaanal jàmm ak salaam ak télévision nationale